ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbi ajma'in mbok yi mbok yi bax yi nga xamne ñi ngi jakarlo ak ñi ngi len di bu ñu sante yalla ci yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam. ñi ngi len di nuyu ci assalamu alaykum wa rahmatullah a ah, nayo bo xamne ñi ngi ko tibbee ci sunu xol jëme ko seen jëmuy tedd nga xam jakarlo ñun ci émission mag bi ci euh xibaar TV 221 ci nurul Huda mi nga xam mi ngi daw and ak yeen inshallah ci sak aljuma 17h30 ba 18h30. di eh, sant yalla diko ñaan bu baax diko ko diko ñaan yalla def tawfiq ci kër gi nak commencé ci ki ci bobbi ba ci ki ci eh, eh, souf ñepp nak ta kenn nekul ci souf ñepp ci ma sha allah di ñaanal yalla defal leen tawfiq ak ak eh, taysir tey nak émission nurul Huda insha allah mi ngi ñew di continuer ci li nga xam ne commencé won nañ ko kerek ci as-sawm ramadan bi nga xam ñing koy wajal ñun ak yeen te jàlloon na ci tuuti ci yi nga xam ne moom koor indaale na ko ci ay njëriñ te waxoon nañ leen fawaid yi nga xam ne ak taarix bi nga xam ne moom la koor commencé ci diine lislaam mu nekk bésu altine ci ñaareelu at ci gàddaay gi yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci madinatu munawwara koor nag waxoon nañu indi woon na ay mbir yu am solo ci li nga xam ne dafay nekk ruux ci côté ruux nekk ci côté euh, social nekk ci côté loo ñuy wax sixa di santé kon duñ ci dellusiwaat ñun ak yéen dañuy continuer ci yi nga xam ne ay mbir la yoo xam ne moom weeru koor da ko indi ci ay ngëneel yu baree bari te waxoon nañ leen incha allahu ci biir koor gi dinañ ci gën a yaatal ak yéen ci koor njëriñ lu bari li nga xam ne indi na ko moom weeru koor bokk na ci rek comme xadis bi nga xam ne waxoon nañ ko ne weeru koor daal képp koo xam ne woor nga ko te fekk ngëm yàlla moo tax ak sàkku bo bo ci genn da ngay melni kerek bi sa bi la sa way jur juree ngeen ban ci kaddu gi ah, bokk na ci ngeen yi nga koor ko indi te bu al-akhirah àllaaxira ah, da ngay gis ko xamne da fay tok mar ci maru nga xamne da fay am ëlëk waye da ngay gis koor ñew nandal ko ba mu ba mu ba bokk na ci njëriñ yi nga xamne koor daf koy euh buy départ rek da ngay gis yalla subhanahu wa taala ci ñëbeen guddigi ci lay teunk mbollem shaytani motax di ngay gis ndam adam bo xamne sawar don tax ci jaamu yalla bu koor da ngay gis ni ubbe ko lol sawar lor ci jaamu yalla nga xamne ponkali yaqtali nga xamne moy shaytan ak ñi nga xamne ñum lay andat ñom ñep yalla subhanahu wa taala daf leen di jeng am fu leen laq su boobaa dafay ubbi buntu safara yëpp da koy ub wa xulliqat abwaabun annaar ah, dootu ko ubbi mukk lu dul koor gi dafa jeex bokk na ci kan njëriñ li nga xam ne koor dafay indaale mooy dafay tëj mboolem bunti yi nga xam ne mooy bunti mbugal ak bunt yi nga xam ne mooy bunt yu doy yépp koor daf koy indi buy bu ñëw daf koy tëj ubbi nag bunti aljanna yi Euh, yi nga xam ne mooy juróom-ñetti yépp yàlla subhanahu wa taala daf koy ubbi taaralaat aljanna comme ni nga xam ne noonu la ñu ko sang bi sallallahu alayhi wa sallam waxee di xaar jaamam yi nga xam ne ñooy nangu ndigalam def ko def bu ëllëgee àllaaxira yàlla subhanahu wa taala koy fayee loolu di aljanna waxoon nañ ci ne am na ci bunt boo xam ne ca aljanna nañu koy wax babu reyaan ñun ñëpp xam nañ ko euh, buñ ca àggee ëllëg àllaaxira ña doon woor ñoom ñooy duggee ca bunt boobu euh, wér na ne am na ci ñoo xam ne euh, ci bu ñu ci bu gi commencé yàlla subhanahu wa taala dafay yónni ay jëmm yoo xam ne ñooy woote naan eh yaa baaxil xayri aqbil képp koo xam ne bëgg nga yiw préparel waaye nag yaa ba wa yaa aqsir yow kii xam ne lu bon rek moo li nga xam ne moo la itteel ma ne préparel nga gàttañlu nga xam ne weer wii kat ah, ci waxkat boobu di woote mooy wax lii ne walillahi utaqaau min an naar eh, am na ci yàlla sag guddi chaque guddi moom borom subhanahu dafay jéggal lim bu bëree bëree bëri ci safara mooy da leen koy effacer da leen di amnistie ci France ci ci ci ci ci safara yàlla ci yàlla boole ñun ñu ak yéen loolu nag dafay am ci gépp ak guddi moo tax koor dafay indaale ay mbir yu am solo yoo xam ne jaam yi dañ koy sàkko yiw bokk na ca ci li muy indaale mooy asadaqa muy sarax bokk na ca li muy indaale moom koor incha allah benn bu si nekk danañu ko faram-pàccee incha allah yi ci émission yi di ñëw bokk na ca la muy indaale mooy qiyaamu layli mooy taxawaay yi nga xam ne dañ koy taxaw ci jàkka yi yonent bi salaa salaam di wax ne képp koo xam ne dogal nga kenn ko woor képp koo xam ne dogal nga ko woor na nga jàpp ni am nga lu toll ni tiyaabo moom te du wàññi ci tiyaabam dara kon li mu am ci ba ca bés boobu yow da nga koy am Ah, képp koo xam ne dogal nga aji woor ci ndox wala ñam bu bu dagan na nga xam ne malaayika yi danañu sax di julli ci yow mboolem fani weeru koor wi yëpp te buñ demee ba ca laytul qadr jibril alayhi salaam day day julli ci yow jullig malaayika ci jàmbi mooy di ko ñaanal njéggalu ak borom bi subhanahu wa taala moo tax bu kenn xeeb lenn ñun ak yéen bu kenn xeeb lenn lenn loo xam ne lu ko mën a jural tiyaaba la surtout nag leneen ñam ak jox ko jaami yàlla yi ak yaatal ci jaamu yàlla yi moo tax foog ñu ubbiwaat bunt yi yaatal jaamu yàlla yi képp ko nekk loo tanee sa morom nga jàppale ko ci yàlla rek tax su ko dee su boobaa euh, jaamu yàlla dinañ mën a woor seen woor te yenn itte yu bari damay wax ne dañ koy wax tax chaque jour ci daje yu bari am nañu benn bunt boo xam ne ci lislaam buñ ko utiliser woon wallahi képp koo xam ne ñàkk nga ci kaw suuf daanaka ci ci kon ci dëkk bi laa mën a kon dafay jeex mooy buntub azaka azaka ak ni ko yàlla euh, organisé buñ kow ubbi woon jaar ko fañ ko war a jaar ba jaami yàlla yi kenn ku si nekk jot li nga war a jot amul kenn koo xam ne ci kaw suuf ñàkk dina la sonal ci kaw suuf wala loolu ñuy wax am ittee mu war mu war a faju te du faju kooku dafay nekk loo xam ne lu jeex ci kaw suuf lay doon ndax xoolal tey ñaata compte banque ñoo nekk tey ci Kër Massar gi rek ñaata compte ci ay banque ñaata ci ay bitik ñaata ci ay magasin ñaata ci ay euh, ki maanaam ay denc yoo xam ne ñu ngi koy denc ci kër yi loola ki nga xam ne moom la yàlla jiital ci réew mi ñi nga xam ne ñoo ŋànk maanaam ni doxalinu jaam yi su boobaa ñoom ñooy taxaw pour génne asaka jooju nga xam ne jaami yàlla yi ñoo ko moom su ko dee buñ ko génne ñu jox ko jaami yàlla yi kon da ngay gis ne dafay nekk loo xam ne dafay mujj jeex ci dëkk bi moo tax loolu ñu ngi ciy oo bopp di ci oo julli ñi képp koo xam ne weer wi ñëw na ah, da ngaa waroon a génne asaka génne ko nga jox ko ñi nga xam ne ñoo ñoo ko moom loola bokkatu ci sa alal bëri nag nag alal ju taxaw di yàqu la koy yàq mooy ñàkk ñaare la ci gën a bëri mooy ñàkk génne àqu yàlla subhanahu wa taala te gis nga li nga ci war a génne moo génnewut misaal tey nga war a génne ci dix millions yi nga génne ci cinq millions euh, wala un million laa bëgg wax li muy tuuti tuuti noonu tey boo ko génnewut nga mm, at mi euh, mm, euh, ñàkk gi ko ñàkk génne nga tëbaat génne cinq millions def ko ci yoon yàlla amul la njëriñ parce que da war na a génne asaka jëpp pare loo ciy defaat nga dog koo def loolu la mooy sarax moom tax yunti sa sam di ñi daan ci xirtal jaam yi bu baax a baax a baax a baax sang bi sallallahu alayhi wasallam maanaam ko tabee la woon dafa tabee woon lool waaye bu weeru koor ñëwaan danañ gën a tabe te nag jibril alayhi salaam daan na ko daje moom di nafar alquraan karim loolu danañ ci ñëw yonent bi sallallahu alayhi wasallam di wax ne daan na ci qiyaamu leyli bi incha allah ci gën a yaatal daan na taxaw guddi gi eh, moom ak ay sahabaam def na ko trois jours ca ca jour ba mu dugg néegam bañ a génn bi ñu euh, saxaaba yi xëyee mu ne dama bañ ñu farata ko ci yéen mu nekk farata waaye nag bi nga xamee ne dem na ba ñibbi ca borom subhanahu wa taala euh, moom sang bi sallallahu alayhi wa sallam ci la Seydina Omar ñëw maa dekkalaat loolu muy xiyaamu ramadan yi nga xam ne ñu ngi koy taxawal ci jàkka yi moo tax mu nekk lu bari tiyaabo yonent bi sallallahu alayhi daan na ko dundal daan naa it xirtal ak njabootam bu dee ba fukki fan yi mujj ya mu commencé nag ji yee ko koo xam ne rek mag nga wala xale boo xam ne mën a taxaw ñëpp da leen daan xirtal ci ñu maanaam ñu ñu taxaw ci xiyaamu yooyu incha allah dañ ci gën yaatal bokk na ci li nga xam ne weeru koy indaale na ko jàng alquranul karim alquran bi sax danañ ci gën yaatal lu bare bari incha allah daan na ko nafar moom ak jibril lu ci waay man lum tuut tuut bul xeeb bésu maanaam weeru alquran mi ngi ñëw yonent bi salaa salaam daan na eh, ànd ak jibril di ko muraajaa sak eh, weeru koor ba mu jeex ba xarba naasi ba bi ngay xam ne ci lay dem rafiqul ala daan eh, muraaja na ko ñaari yoon moom ak jibril moom sang bi sallallahu alayhi wa daan na ko eh, na nafar bu baax a baax a baax ko na ci yi nga xam ne eh, weeru koor indi na ko loolu ñuy wax eh, mu nekk sunna boo xam ne bu am solo la muy i'tikaaf fil masajid mooy loolu ñuy wax i'tikaaf ca jàkk ya moom tam yuntu saxam daan na ci ñaax aw maanaam société bi daan na ci ñaax ay saxaabam ay ak ak daan na ci ñaax ay soxnaam yépp dafa nekk ne koor nag Euh, dafa am ñoo xam ne war na leen am ñum warut incha allah yooyu danañ ci jaar jaar bu gaaw yii yëpp danañ ci ñëw tomb par tomb bokk na ci charte yi nga xam ne mooy tax xam nga mën a woor mooy euh, xadis Yonent bi saasam bi waxoon ne ñetti ñi ñoom maanaam ubbil nañ leen wàcceel nañ leen mboolem jëf yi mooy ki nga xam ne yàlla subhaanahu wa dafa muur am xelam ba ba muy delsi kooku ak xalimaam dafa dafa maanaam aj nañ ko kii nelaw ak xalimaam aj nañ ko xale bi nga xam ne dafa euh, nekk xale te géem matagul masoor kooku ak xalimaam aj nañ ko kooku maanaam koor waragu ko waaye nag buy jéem maanaam kenn ku ko tere jéem bi it mën naa jéem ba ci digg incha allah loolu yëpp dañ ci ñëw ci gën a yaatal mën na jéem ba ci digg mu dagg noonu lañ koy jàngalee koor bokk na ci ñi nga xam ne ñu ngi ci biir wooru koor waaye koor jéggal nañ leen ko mooy kuy tukki kooku euh, may nañ ko mu dog ak lu tukki mi yàgg-yàgg bu del këram incha allah mu doog a euh, koor mu doog a wooraat kooku may nañ ko mu dagg moom ki nga xam ne moom mooy ki tukki ki feebar feebar boo xam ne yaakaar nañ ne bii kat moom du ci wér waaw léeg-léeg nag mu nekk feebar boo xam ne bu yàgg ak yow lay doon waaye ñeme maanaam bokk na ci ay feebar yooyu am na kii yoo xam ne moom ñemewuñ koor waaw su ko dee su boobaa ñooñu euh, koor danañ di wàcc su boobaa dañuy dañuy dañuy lele incha allah yii yëpp danañ ci ñëwaat bokk na ci yi nga xam ne koor indi na ko ki mag mi nga xam ne mag la lool kooku koor da koy wàcc ki nga xam ne moom mënatul woor kooku da koor da koy wàcc chaque jour bu nga xam ne woor nañ moom day génnee euh, deux kilos wala deux kilos cinq cent mu joxe ko loolu bokk na ci li nga xam ne moom koor da koy wàcc bokk na ci ñi nga xam ne woor kii dañ leen koy moytaloo mooy ki euh, soxna si nga xam ne dafa wan lor mooy dafa ëmb ba nga xam ne euh, docteur yi saxal nañ ne ko yow kat mënoo woor ak ki nga xam ne dafay nampal te mënu ko boole koor gi kooku it dañ koy may mu maanaam koor gi wàcc ko ba nga xam ne su moom dafay euh, lelee ñam bu ñu ba koor gi jeex nag euh, moom day fay ak musaafi bi day fay ki nga xam ne dafa feebaroon bu wéree dangay day nekk loo xam ne moom it dafay fay kon koor nak amna ay ponku ponki yi wut ñetti ponku la eh, yi nga xamne ba saa yoo ko baye koor gi fay yaqku moy bi ci ñeek moy anniya moy yene kon da ngay fas yene koor lool nak mi ngi saxé ci buñ ne gis nañ wër wi kon amo droit ah man de mangi teud waaye gars yi ñi ci séentu kon man fas naa yéene bu ma xëyee woor nga xëy fekk man a yëg ne weeri feeñ na waaye euh, euh, bi ngay tëdd xamoo ndax weeri feeñ na wala déet su boobaa euh, si niyyee boobu rek du doy waaye dangay ngay imsaak da ngay jàpp ba nga xam ne bu weeru jeexee incha allah nga fay waaye liñ bëgg mooy nga yëg ne weeri feeñ na nga yëg ko ci ay xibaar yu wér te wóor su boobaa amatoo droit ñàkk a woor foofu la ñuy tàbbalee yéene bi loolu nag dem na ba fajar gi xar bu fekkee dañoo xëy nag ñun ñëpp ah séntu woon nañ ba jàpp ne weer yi feeñul ñu xëy kenn ku si nekk yëg ne kat ah xibaar yi kat ndeke weer yi feeñoon na su boobaa ñun dañuy def imsaak loolu ñu wax imsaak mooy jàpp bañ a lekk bañ a naan ah, ngir wormaal weer wi bu weer wi jeexee incha dañ koy dañ koy dañ koy fay. ñaareel bi ci nga xam ne kon niya bi mënul ñàkk niya bi dafay tàbbi bu ñu yëgee ne weeri feeñ na balaa ñoo tëdd wala bu ñu xam ne euh, balaa fajar gee xar bu fajar gi xasee xar nag ba nga xamee ne xëy nañu ñu yëg ne weeri feeñ na kat su boobaa it niya dootu dootu baax waaye dañuy def imsaak mooy téyewu kon nag ndax innamal amalu ji binniyaati yéene yi maanaam jëf yëpp ñu ngi leen takkee ci yéene yi bokk na ca ñaareel bi mooy al imsaak mooy jàpp ci lépp loo xam ne dafay yàq koor ndax boo yéene woon rek du doy nit ki dafay yéene buñ demee ba heure bi xëdd jot mu gaaw xëdd li muy xëdd su defee su ko paree ne mu def imsaak jàpp ci lépp loo xam ne dafay yàq koor ci laala lekk la wala naan wala loolu ñuy wax eh, ànd ak eh, soxna yi yu mel noonu yooyu yëpp dañ ciy jàpp li ko dagg ci xaruk fajar gi ba fi jant bi sooyee loolu nag dafa am ay liggéey yu sew yi ci gaay yi def mooy léeg nga gis ñuy lekk ba bët set daanaka loolu erreur la su boobaa li lislaam daan la attention ndax war nga bàyyi balaa ñoo salaatu lu mu dee dee dix minutes wala quinze minutes nga bàyyi lekk bàyyi naan léegi nag heure na ci ñun dañuy lekk rek daanaka ba loolu ñuy wax kii léegi nag moo tax noddkat yi ñoom it foofu am nañ ci part de responsabilité su boobaa ñoom dañuy gaaw nodd ci heure boo xam ne xëy na su boobaa di leen di yàqal ñi nga xam ne ñooy lekk. Eh, walla ñooy naan parce que société bi léegi loolu la loolu la tàmm mooy di lekk di naan ba loolu ñuy wax eh, dégg bilaal di di noddo kon al imsaak bokk na ci ponk yi nga xam ne mooy ponk koor ak zamaan zamaan buñ ko waxee mooy jamono jamono koor xam nañu ko mooy fi fajar gi xaree ba fi jant bi soxee loolu mooy zamaan bi kon tey bu ñëwoon ah ñun dañu ci koor gi nga ne man de kon li ma léegi ni may def mooy damay woor guddi gi rek bàyyi bëccëg gi su boobaa dañaan naan déedéet kon amoo koor parce que zaman bi mooy zamanu nahar almuraadu bihi annahaaru huwa min tuluuci alfajri ila gurubi shamsi nee na nit ki bu dikkoon di wor bëccëg yi di naafila di di di di di di wóor guddi yi bàyyi bëccëg yi su du ko du ko doy xam ngeen ni ñun ñëpp xam nañ ko ci lislaam mooy lislaam léppam dafa am nu koy tegee heure bu nekk lam ci yow soo ko bàyyee def leneen su du la amal njëriñ misaal waxtu julli tey bu jotoon nga japp bo set wala sa jappo nga daw rek ag wër commencé di wër jàkka di daw di wër jakaji di daw di wër jakaji ba nit ñi julli pare gis nga yo yaa gën a sonn waaye su boobaa do ci am tiyabo parce que heure julli bi liñ bëgg mooy eh, nga taxawal julli gi ganna buñ ñu liqam jang fatiha taxaw qushu muy toroxlu yi ngay def rukoo jàng bu dee ak jàng saar rokon sigi ci rokon bi sujud mooy geste julli yi moom lañ soxla ci heure boobu waaye leneen loo ko def rek su boobaa yaa ngay sonal sa bopp waaye doo ci am bu moo tax zamanul bi nga xam ne moom la lislaam date ne bii la boobu rek la mën doon ñaareel bi musal euh, tey aj màkka bu jotoon nga ne ah man de heure bi ñuy aj màkka dafa tàng kon naa xaar ba jamonoy sedd ma doog a dem su boobaa aj gi du nangu duñ ko duñ ko duñ ko d'accord ndax su boobaa da nga zaman bi nga xamne mom lañuy mom lañu mom la ñu ci yow. ay mbir yo xamne da nañ ko téla duggal bala émission be sori ci euh, yi nga xamne daf koy yak parce que xam li yak koor nak dañ koy répéter ay yoon ndax bañ ji ci. liy yàq seen koor ñu jàpp ne ñu ci koor gi fekk nekkuñ ci koor gi ndax yonent bi sallallahu na rubba saa'imin laysa lahu mi siyaamihi illa al juu' bari na ko woor ba ngoon jot amul ca koor ga lu dul maanaam ñàkk lekk ak ñàkk na mooy xiif bari na kuy taxaw di qiyaam te amul ca qiyaam ba lu dul lekk ak ñàkk naan ndax am na ci yoo xam ne boo ko bàyyiwut sa koor gi amalu la njëriñ mooy loolu ñuy wax euh, lépp lu jëm ci caaxaan lépp lu jëm ci fo lépp lu jëm ci po moo xam ne dafa ànd ak surtout biir baan bu ànd ak bàkkaar yooyu da koy sori léeg-léeg nag am na njuumte yi am incha allah buñ dee ba ci njuumte koor yi danañ ca ñëwaat gën a yaatal misaal tey bu koor gi jublu si rek ñu commencé yi uti ay lido lido yooyu dafa nekk loo xam ne yonent bi da ciy wax lu yéeme mooy dañ ko jàppee genre damier li de moog damier bokk mu ñoo ñoo ñoo ñoo ñoo bokk ñoo niroo yonent bi saasam ne képp koo xam ne ah, yaa ngi jël sa loxo di ko dugal ci damier dafa mel ni ki yow da jël sa loxo di ko dugal ci yàpp yàpp mbam ko loolu nag ab jullit lu mu war a moytu la baaxul moo tax lii baaxul ci koor dafay nekk loo xam ne dafay jëmee ci yàq sa koor ndax rafas la lu mel noonu la moo tax eh, yonent bi saasam di ko eh, bàyyiloo xel jaam yi ndax boo gisee yàlla kalaas bi mu woote ci koor waxoon nañ ko ci émission bi passé lislaam dañ koo xaaj ñetti xaaj al muslim sama classe gi yëpp nag ñu ngi toll ci darajatul muslim moota tax yàlla bi muy woote xam na dimension koor coono bi ci nekk ak jafe-jafe yeeg li ko gaaw a yàq moo tax mu ooñee ci bismil iman ya ayyuha alladina amanu e eh, yéen ñi gëm yàlla shurutul iman ah, jaaroon nañ ci kerek mooy juróom-benn ponk yooyu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil axiri wal qadar ak dogal yi su boobu eh, ñi nga xam ne al mu'minu lañ ñoom lañ woo ci classe bi ndax da dem ci école école bi am na ibtidaa yi ñi nga xam ne ñooy da nga commencé jardin am na ñoo xam ne ñi ngi ci ñooy def euh, classe yu njëkk yi am na ñu àgg ci zegon wala wala b wala BFEM am na ñu àgg ci bac am na ñoo xam ne ñum àgg nañ ci bag kon école bi ay ab ay niveau la donte kaw tey élèves yëpp buñ leen laaj dañ naan ñi ngi jàngee ci école sàngam ñoom ñëpp école bi moo leen couvrir waaye dara jaari ci biir école bi bokkul noonu la l'islam mel lislaam dafa am ay ay classe ci biir euh, classe yi moo tax yàlla subhana taala di woote ci euh, turul iman pour ñu mën a góorgóorlu bañ a bokk ci ñi nga xam ne incha allah yàlla subhana taala day dañuy bokk ci wax yéntu saar bi wax ne bëri kuy ñuy woor ba ngoon jot te fekk amuñ dara ci seen koor ga lu dul ak xiif ak mar yàlla ñu ci yàlla musal euh, fukk yi nag boroom xam-xam yi dañ ko génnee dañ ciy jaar di ci jaaral lu bari pour nga xam ne dafay yàq koor mooy nga moytu bépp diw boo xam ne dafay yeey jëm ci sa biir kon ki xëy woor laal lu mel ni ab rob ci ba kanam wala mintalata wala yi mel noonu bu ko saa yu ko santere ci biiram rek bés boobu dafay yàqu saa yu ko centré ci bisam ci bis ci biiram ba bés boobu dafay nekk dafay yàqu da koy fay du kaafara nag kaafara bu ñu ko waxee mooy woor ñaari weer yi mat sëkk wala nga leel juróom-benn fukki miskin wala nga goreel jaam loolu mooy kaafara te yooyu yaay waral kaafara incha allah dañ ci ñëw ak ki doon jàpp am lu jàll ci biiram wala muy ci gëlax nekku bi walla ci sorox ndekku bi su boobaa dañ naan ngay continuer sa yu rek dañaa ko da ngay continuer waye bu wéru dé dang kay fay do ka fara nak kon yi ñuy limni moy yi nga xamné ku koy mëna bu yaqko ci yow ngay fay bis ah ki nga xamné xayna dafa nek ak soxnam ci biir nek bi di foog mom ba am lu genn ci mom su ah, da fay yàq ak koram waye du kafara ki nga dafa xëy na dafa xëdd xëdd bu diis ba mu sonal ko mu génne ko ngeen baal ñu su boobaa loolu ñu wax looju mu génn su boobaa yow dañu laan la yaa euh, da ngay fay bés boobu ndax yaa ko tey yaa looj sa bopp ki nga xam ne dafa toog nag xel rek ak xelam teey mu euh, génne euh, ñam su boobaa dañuy wax ne kooku moom bu dara del si wut mën naa ku defar gi mu ba mu njëkk rek mu continuer ci koor gi su boobaa du fay ki nga xamne nak dafa lek wala muy nan wala mu andak soxlam ta fek dañ ko koo forcé loola su dafay yàq bésam ko bés boobu dafay yàqu waaye su boobaa du fa du du kaafara yii ñuy lim yeb waxon nañ leen ko ci biñ koy commencer moy yi yàq sa bis waaye do kaafara kep ki nga xamne dafa lek wala mu nan jàppoon ne ah man kat na ne fayar xaragul su boobaa dañ naan la yow euh, euh, da ngay fay bés boobu rek waaye doo ko doo kii ki nga xam ne dafa dog ba ba nu mu tuddati jàpp ne jant bi sona su boobaa kooku dafay dafay fay ki nga xam ne dafa fëgg ab yéeneen te mooy dem ba mu yàgg ne ah man kat bàyyi naa yéene bi euh, wooratuma su boobaa dafay fay benn bés ak koo xam ne dafa war na leneen lum mooy ñam. yooyu incha allah dafa bokk ci yi nga xam ne dafay eh, jeexal ko incha allah mbokk yi suñu technicien ñu ngi ñuy junju waxtu wi dab nañu kon lu jiw wi jeexul jógu fi eh, eh, njàngat mi njàngat mi jeexut waaye waxtu wi moo ñu dab incha allah ñu ngi leen ñaanal koorub jàmm den ko ñaanal yéen ñi ñu ñu jàkkaarloo ñun di ko ñaanal ñi nga xam ne ñoom la yàlla dénk kër gi di ñaanal yàlla subhanahu wa taala defal leen tawfiq gën a yaatal liggéey bi gën ko barkeel ñaanal ñu ñun ak yéen lépp loo xam ne ñu ngi koy wax mu nekk loo xam ne dañ koy wax li wajhillahi al karim ñu jëriñu ci àdduna ak alaxira wa ma dalika ala allahi bi aziz wa sallallahu sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajmain السلام عليكم ورحمة الله وبركاته